beaucoup. Merci beaucoup. Merci euh, Madame la Présidente, honorables députés, euh, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des honorables députés ici présents pour la sincérité du débat. Je pense que je ne vais pas durer. La majeure partie des députés qui sont intervenus l'ont fait en français, en, en, Wolof du moins. Mais je voulais tout juste euh, rappeler à l'honorable Samba Dang qui a, qui a posé des questions en français, lui rappeler que en réalité c'est l'opposé qui s'est passé. Le tourisme n'est pas en crise. Au Sénégal, le tourisme n'est pas en crise. Au Sénégal, le tourisme fonctionne. Les hôtels sont remplis. Et nous n'avons pas de problème pour vendre notre destination. Je le dis de par la grâce de Dieu et de par notre propre stratégie. Au moment où je vous parle, le Sénégal est redevenu la destination favorite des Français. Au moment où je vous parle, Il y a 12 nationalités qui ne venaient pas au Sénégal, qui commencent à venir au Sénégal. Ceci est possible de par notre stabilité, les services que nous vendons et de par surtout la stratégie de conquête des parts de marché. Si, ça, si on a pu accéder à ce niveau de crédibilité, c'est parce qu'il y a eu de l'investissement. Beaucoup de sites ont été désenclavés, soit par le PUDC, par le programme euh, des ministère des Transports. Beaucoup de sites ont été aménagés avec le ministre de l'Urbanisme et des efforts ont été consentis. Cependant, on n'a pas atteint nos objectifs de de 3 millions en 2023, mais c'est surtout dû à la crise à la pandémie, où il fallait repartir à zéro. La stratégie est claire et les investissements sont en train de se faire. La preuve, c'est au moment où le tourisme s'affaissait dans le monde entier que des bailleurs ou des privés ont investi des millions et des millions d'euros pour construire l'hôtel que mon ami, l'honorable député Baragay, aucun Sénégalais ne l'a vu au moment de, durant la construction, parce que ça s'est fait durant la pandémie. Je pense que c'est une preuve de crédibilité. Au moment où ce secteur s'affaissait et que les hôtels fermaient partout dans le monde, qu'un géant de cet ordre puisse investir autant d'argent. c'est parce que nous sommes crédibles, c'est parce que notre euh, politique nationale ou touristique et sécuritaire rentre dans leur corde et de retrouver leur investissement. Le tourisme local contribue aujourd'hui à hauteur de 33%. Certains de nos camarades, euh, de nos amis de, euh, honorables députés m'ont posé la question, mais c'est 509 milliards. S'il le document, c'est 509 milliards en 2022. Donc nous sommes de ce que nous apportons dans l'économie de ce pays. la programmation a été lente, mais les débuts prouvent que raison de faire ce choix. Sali un problème, il fallait Récupérer Saly, c'était arrêter l'érosion et restaurer les plages. Ça, on l'a réussi. Si ce n'était pas ce programme-là, aujourd'hui, pratiquement, Sali n'existerait pas. Rectifier les erreurs de Sali demeurait euh, une priorité. Ne pouvant pas le faire sans dégâts sociaux, nous avons démarré Pointe-Sarène. Et aujourd'hui, nous faisons de notre mieux pour éviter les erreurs de Sali. Peut-être c'est ce qui explique l'intervention de l'honorable député Sirandiaï, parce qu'à Pointe-Sarène, quand même, nous avons signé. Et la vérité, c'est qu'ils nous ont fait confiance pour démarrer à un niveau zéro. Il y a des engagements que nous avions pris que nous n'avons pas respectés à travers la route de contournement qui est réalisée actuellement. à travers un produit d'appel de golf que nous allons réaliser. C'est ce qui empêche le démarrage de Rio 2. Inch'Allah, très prochainement, nous allons effectuer la pose de première pierre de ces deux, que ce soit le golf et le ministre des Finances est engagé à boucler le paiement pour que l'entreprise puisse faire le contournement. L'autre investissement touristique qui va se faire très prochainement, c'est le Sinsaloum. Mais ces deux groupes ont pour priorité d'investir à Saint-Louis avec 1024 chambres, honorable député Babacar Donc que, certes, il faut aider les patrons sénégalais qui ont investi leurs propres sous, mais nous avons de ces investisseurs-là. Parce que je ne vois pas de en tout cas parmi les privés, à moins qu'on mutualise euh, nos ressources, lever 500 millions pour investir sur 1024 chambres, lever 450 millions d'euros pour le mettre dans un golf et des villas et d'autres hôtels. Nous sommes obligés de travailler avec ces groupes. Cependant, il faudra aider euh, nos compatriotes qui ont investi dans le tourisme. ci wolof jéem naa tënk tuuti ci ñuy wax wolof damay wax ni que tourisme nekkul ci crise ci réew mi hôtel yu ci bari fees nañ ba premier janvier bii di ñëw hôtel yi ñàkkuñu client ñi ñàkk client mooy ñi nga xam ni seen seen euh, seeni niveau de service yi ñuy jaay xëy na dafa yam mais amul fenn fooy dem dëkk defe naa député yi yéen seede ngeen ci parce que ut ngeen ay fan yu bari pour mën a dem ci benn hôtel hôtel boobu mu wax te dafa fees dafa fees ba décembre 2024 donc kooku bëgg na tabax beneen bi beneen bi li tax commencé gul 612 chambres yi ñun li ñu waxoon ak moom ñoo ko deful mooy dañ ko waxoon boo tabaxee ba commencé dinañ defar contournement bi nga contourner Ngor parce que ñoom dañuy calculer temps bi seen client bi di jël pour egg teg bagage am mooy waxtu bi muy def ci aéroport bi day compter flux trafic bi koy yóbbu ba ci hôtel bi day compter te dem yu fi mu nekk nii dugg biir mbuur la gën a donc am na tali tali bi commencé nañ ko président wax na ko travaux yi commencé na entreprise bi moo taxaw waaye ministre des finances nee na dina ko fay beneen mbir bi tax euh, foofu yeneen yeneen groupe yi sampooguñu ca riu defagul deuxième partie bi mooy dañ leen a waxoon ni que bu ngeen démarré dinañ ko def produit d'appel boo xam ni golf la golf c'est pas rentable il faut nga am kenn ku taxaw présenté nañ ko mais ci kàttanu yàlla am nañ ku ñu ko defal dinañ def pose premier pierre bi balaa fin wala balaa la 15 décembre incha allah pour que ñoom ñu mën a démarrer ñooñu bu ñu jógee foofu fële la ñuy dem ndar lañuy dem te vingt 1024 chambres lañ fay def donc jàpp naa ni 1024 chambres bu fa amee seeni i charteru bopp la ñuy indi. loolu ci clause de discussion yi loolu bokk na ci li tax président bëggoon aéroport Ndar teel a pare pour que sur ce plan là qu'on puisse développer le tourisme balnéaire foofu ñiy wax nag ci wàllu hôtel yu tëj yi bari na wax nañ club àjjana wax nañ euh, domaine de Nianing domaine de domaine de Nianing sénégalais moo ko jëndaat club àjjana sénégalais moo ko jëndaat hôtel yi tëj yi fi ëpp fii nii ay sénégalais ñoo ko moom mais defe naa bokk na ci suñ crédibilité économie ak suñuy texte nit mënta jënd dara état bi moom ko état bi ñëw di ci teg loxo pour ubbi ko wala pour pour tëj ko te dara amul hôtel yooyu dañu fayit club àjjana dafa fayit tubaab bi ko moomoon jaay ko beneen sénégalais kooku jënd ko di ut partenaire yaakaar naa ni am na partenaire euh, euh, domaine de Nianing aussi même chose savana yi fi nekkoon dañu am ay problème savana am na problème ak SAPCO am na problème ak keneen donc am na ci yenn yoo xam ni ñi ngi en liquidation judiciaire am na ci yenn yoo xam ni ay privé sénégalais ñu ngi discuter pour reprendre ko mais état bi munul dara ci ku jël am hôtelam mu fay mu dem ni day foqati pour ubbi ko loolu état mënu ko parce que alalu jàmbur la comme kër la loolu moom heure bu amee fii nii defe naa kuy investirati dootoo wóolu ñëw investir parce que mën nga def sa xaalis ba pare ñu contraindre la ci loo bëggul foqati sa yëg donc loolu waxtaan la waxtaan bi nag euh, ni mën a amee mooy da ngay gis ku la wax ni que bëgg naa ñëw Sénégal investir nga ne ko mën naa la boole ak privé bi bëgg naa am naa bëgg naa investir Sénégal ci tourisme nga ne ko mën naa la boole ak sénégalais bu créer facilitation yi parce que après sénégalais boobu mooy jël kayit mooy dem APIX mooy ut code répondre code de l' investissement dem lijjanti ci terrain ci maire yi def yooyu Sénégal bi moo koy def après ñoom ñu nekk en partenariat donc bu fekkee ni ko hôtel bu taxaw la ba pare wax dëgg yàlla warul jafe parce que foncier boobu c'est aujourd'hui c'est recherché club àjjana defe naa 60 ectare la domaine de Nianing aussi donc loolu foncier ay titre foncier jàmburu la mais ñoom ñooy ut partenaire bi leen biñ bëgg mais ñun suñu cër ak suñu liggéey mooy fexe ba loolu am donc bu ma tënkee parce xam naa ni jot bi xaw na bari heure bi mu ngi yokk bu ñu tënkee tourisme mën na avancé crédit hôtelier bi liñ ci wax juste bi Covid bi jeexee changement gouvernement am dañu ñëw fekk ñu jël onze milliards xaw ma douze milliards séddale ko ñi gën a mag loolu mooy dëgg tamit ñi gën a mag ñi gën a mag mooy ay trois milliards quatre milliards président ni nañ dindi loolu ñu dimbali ñi gën a ndaw parce que Saint-Louis pour nga am fa titre foncier dafa jafe delta du Saloum pour nga am fa titre foncier dafa jafe pour nga am fa baay dafa jafe boo demee Diourbel hôtel bi fañ ko tabax ci délibération la këyit yooyu banques yi duñu leen jël président ni nañu fexe ñu jàppale leen ci crédit hôtelier bi ñoo ñu mën a développé ñu rompre contrat bi ñu amoon par rompre mais li ñu dese ci xaalis ñu ni duñ ko yóbbu ci banque bi dañ koy reverser benn structure état bi pour mu ñëw en ligne de garantie ak FONGIP loolu lañ def yóbbuwaat xaalis bi FONGIP pour ni que dinañ impacter région yëpp parce que dañuy dem ay conseil des ministres ay tournée da gis ni que pour ñu loger gouvernement bi sax problème la Ayib Daffé dem na mais Sédhiou def nañ fa trois 300 millions Sédhiou def nañ fa trois 300 millions pour tabax fa léegi au moins assemblée nationale bu ñu fa demee genn wàll gi dinañ mën a loger Sédhiou Diourbel tabax nañ feneen tamit ñi ngi tabax. ñiy laajte programme ministère yi buñ liiree kayit bi wax dëgg yàlla dinañ wax honorable député sëriñ defe naa mooy Serigne Abdou Thiam ah sëriñ Abo Thiam nee na dakaar Strip lan la yan investissement la defe naa tontu woon naa ci ci commission bi waxoon naa ko ba mu leer wax naa la investissement yi ministère bi def Euh, Ngor Wakaam Parc Hann donc warul mën a am problème léegi nag bu fekkee ni que waxi politique muy ñëwaat ay xamoo dara ak yaa def lii defe ni daaw ama waa côté bi créé loon ay problème néegi ni ren ka leen yónni woon bokkul kon donc yow bul créer problème sa candidat parce que boo duggee ci man ak loolu boo génnee xaw ma ni ndax dina ñibbisi te boobu ba léegi ñu ngi ci jàmm donc nañu wax nañu wax mani man honorable c'est que lépp mën nañ ko def ci yar ak teggi ak ci njekk man wax naa la ni la ne nga ni daaw ñi ma tooñoon wala doon ma jepp wala doon mu utal problème wax dëgg yàlla ren bokkuñu te yow bu fekkee nekk sa candidat boobu nga bëgg kon bul dugg ak man ci loolu parce que bu ñu génnee boo boo fexee ba ñu dugg ci loolu buñ génnee ci loolu rek laay jublu donc parce que tant que tourisme la tant que tourisme la tant que waxi tourisme la tant que xam nga xam nga honorable honorable honorable honorable non non honorable honorable honorable nañu nañu nañu joxante cër rek ñu wax ci dal xam nga fi lu fi nit wax dara du ci am waaye ku bëgg a wane ni que réalité la dangay ngay génn rek nga dem ci télé bi fii nga wax donc man man xam nga honorable honorable bi ngay wax dama laa déglu bi muy wax dama toog noppi déglu man du ma menacé man du ma menacé menacé ma menacé wu ma ci ci xayma li mu laaj buñ dee wax waxi tourisme defe naa njàq ak jaaxle amu fi liggéey bu sell lañ def def nañ suñu kémtalaay kàttan liñ fi fekk ci ay néeg doublé nañ ko ñiñ jàppalewul woon doublé nañ ko ñi ñu taxawu gis nañ leen dëkk yu bari dëkk yu bari tourisme dafa naax saay non amuñu performance non amuñu stratégie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 ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan tamit ci ci waxtaan bi merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Oui, merci bien, Monsieur le, Madame, Madame la Présidente, honorable députée. Bon, je pense que les questions budgétaires euh, Euh, se rapportant euh, les questions budgétaires effectivement portent sur euh, la nécessité de renforcer les crédits de la SAP